asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah xanaa ñuy dellu rekk di dëggal di dëggal ak di wéral dama ne nous sommes proches de la victoire nous sommes proches de la victoire gisuma Macky Sall de waaye am na lu ma wér lu ma wér ne lu ko ci génne képp lay xalaat dama ne lu ko ci génne képp lay xalaat mbër bi bëri ji te wóolul boppam wala mu wóor ko ne bu demee daanu dara du ko neex ca làmb jëm-jëm damane ne nous avons gagné le procès nous avons gagné le procès dem caag bañ caa dem ak ak nu mën a demee nu ne yàlla dëgg la bëgg te dëgg rekk am dama ne seeni combine jeex na tàkk France France booyagul ma ne bu fi dajee amee bagage na ko jël si jeexal na takk ci réew mi réew mi kenn moomu kullu noonu France na muy nappaajee ay pombiteer am suñu nekku ci France bu defee ay oto din ko jaay mooy décider prix bu ko neex Air France mënoo ca dugg te fayoo. dama ne Air France mënoo ca dugg te fayoo kon ñoom lu soxla ci nu dikk jël tim seeni yoon boole din toroxal ak duma dama ne duñ ko nangu Ousmane Sonko fatt na bunt bi dama ne fi doon senn fi doon senn Ousmane Sonko ŋànk na ko ndox dut fa jaar lii ngay jëm nag Macky Sall teg ko fi suuf am naa lu ma wér ne bëggoo ci dara am naa lu ma wér ne lii ngay jéem bëggoo ci dara dangaa jël ndab loo àttanul yanu ko loola mooy sa problème waaye am naa lu ma wér ne lu ma wér ne lii nga tàmbali bëggoo ci dara moo tax dara du ci mujj dama ne kan boo ko waxante dëgg kan boo ko waxante dëgg France pour mu jox la visa képp yombut danga ko jox sa xaalis mu lekk ko te du la jox dara waaw si nekk fii doon ay corps diplomatique foofa dem ñu laaj la xaalis te duñ la remboursé te duñ la may dara te ñoom heure bu bëggee dikk dikk dama ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko fatt na pax mi doon seen na dama ne fi bënnoon ci téwo bi Ousmane fatt na ko France dootul lekk dama ne cette victoire kenn mënu koo dindi victoire bii dama ne nit mënu koo contesté dama ne victoire bii kurpeñ yii kurpeñ yii dal Macky Sall kenn mënu koo bañ a tee waccoog jaaxaan dama ne nous avons gagné le combat Ousmane dama ne ce combat là dama bu doon di kurpeñ tóor nañ Macky Sall juróom-ñeent fukki korpeñ ak juróom-ñeent ak benn boo dem ba ci digg ba maanaam fu ne korpeñ dal na ci yaram wi lii juge bi ngeen di ko wax le procureur le fuula li mu géen di ko wax amul njariñ le chien aboie la caravane passe dama ne Bassirou Guèye boo doon baw di baw di baw ànd ko Moussa Fall di baw di baw mu leen fexe ba saret bu du jàll déedéet dama ne Sénégal ci boppam ñoo doyal sëkk doyal sëkk ci lépp loo xam ne laal na France ak lépp loo xam ne impérialiste ñoo koy décider déedéet nun ñii ñooy toog seet liñ bëgg ñu def ko et puis c'est la France qui a droit de nous imposer cinquante pour cent sa cinquante pour cent ko bu noppee suñuy bagage dajee lal kopp njëg ñu jaay la cinquante pour cent yooyu lekk ko defentiw nag yow séddoo lu ñuy séddoo suñ fa ndax sa oto yi ngay defar dañ koo séddoo ndax armes yi nga nuy jaay ñu yore dañ ko séddoo lépp loo nuy jaay dañ lay fay ba mat ba mat nga jël bénéfice bi ngay am ci CFA bi est-ce que dañ koo séddoo yow lu ñu yëkkati ñu ne cinquante mukk cinquante pour cent du fi am xam lu yema ah? quatre-vingt pour cent mooy am waaw bu nu amul technologie bi kon nag sa technologie ak sa investissement daañu dox vingt pour cent day na sëkk di si lépp noo ko moom ma dellu nag di gërëm activiste yëpp fu mbir mi toll yéena ñoom Assane Diouf ñoom maam seen ñii ak jigéen ñëpp Fatoumata so yéen ñëpp damay victoire bii bu amee yéen a ko joué dama ne victoire bii bu amee maam seen yéena waaw wàccu réseaux sociaux yi di dal ci seen kaw di dal ci seen kaw boole ko xam-xam ànd ak mag ñu baax ko mais Alaaji Ibrahima Dramé mii ak Alaaji Ousmane Pouy mag ñoo xam ne war nañu bank seeni loxo toog waaye dina mukk du seetaan gone yi dama ne bu ngeen meloon ne xalif généraux yi ci dëkk bi takk nañu bu yàgg waaye yéen a génn ak seenu fit taxaw di wax muy dal tous les activistes tous les activistes ñoom ak xidatoon ak yéen ñi ne ci mi social media bi wax ak ñëpp ak ñoom jijee ah ñëpp ñoom Ousmane ñoom Ousmane Tounkara ah, ba ci Mola Morgan ak ñëpp ku mu tudd dama ko fàtte ñoom Assane Diouf dama ne mbir mii bu amee yéena dama ne victoire bi bu amee du kenn kudul liveurs yi ak activistes yi ñoom Cheikh Omar Diagne ñii ah, ak ñoom Abdou Karim ñii ñoo tax victoire bi am moo tax ñu di leen ndokkeel dama ni ñii accusé nañu waaw accusé nañu lu ne ñun activiste yi waaye ndam am nañ ko jiijee jiijee am nañ ndam li nga xam ne nag moo am te am mu une victoire incontestable il faut savoir con consommer une victoire te nag dañoo xiif de daañu ànd ak dal ak teey togg ko ba mu ñor xom ñu yàq ko Ousmane Tounkara ñëpp lekk yàgg mu la Morgan dama yéen ñii surtout yéen ñaar ñii ba ci groupe bii nga xam ne ñoom ak na ton ah, ak ñoom kees ñoo ko jiite ah dama ne yàlla rek leen maanaam fay te dañ leen fayal boppam dama ne la victoire est là dama ne bu doon timis ma ne nodd nañ waaw bu doon dog ma ne nodd ma ne ñi nodd timis dama ne bu doon du jeex jeex na tàkk dama ne lu sommes des hommes. Ousmane Tounkara dajji na fatt fatt bi saañ ko ba nga xam ne dara du tuuru maa ngi leen di ñëpp maam seen yéen jigéen ñëpp nag jigéen ñépp ku lim juum ku juum mais yéen ñëpp liggéey bu parfait waaw Assane Diouf jërëjëf euh, ñoom maam Cheikh ñëpp daal yéen ñëpp jàpp ci ban am ndam li jërëjëf Ousmane dem gañe demut gañe noonu bu neexee mu dem moom bu ko neexee ne day dem nu ne ko doo dem ndax Ousmane dañoo dénk boppam Ousmane dañoo dénk boppam bu ne damay dem bu neexee ne ko doo dem bu neex na ko jógal yóbbu la te bu demee am ndam te loxo bu ko laal dam waaw Ousmane Diagne ñëw ngi gërëm waa kàcc kàcc mu waa kàcc kàcc yëpp ñu leen di gërëm di gërëm ñëpp nag di féliciter tous les activistes yi live ñoom ñëpp ñu leen di félicité ànd kook activiste yi ak ñëpp seen liggéey rafet na yéen a moom ndam li ndam li kat yéen a ko waral Alaaji Ibrahima Dramé yow Alaaji Ousmane Pouy mii ngeen woñu ko ànd ak xale di leen jàppale ak di leen teete jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf yàlla ñu buur yàlla suturaal te jàmm am man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil de consciences